alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabii rahma wa kaashifi lgumma wa shafii lumma sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al aima wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi alqiyama mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tan leer ak jamono di ko radio radio télévision bu wal fajri fu ngeen mundi nek ci aduna bi rek ma ngi leni bolé ti juromi baat ñu yalla bolé mu gëna a tedd gëna sel sell sakkan doy walis nuyo ben nuyo man ta doy walis ko ma tibé ko sama xol jëme ko ci seen jëmu yu tedd yi muy alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di del ci wat ci kartanal yalla di sofa ak yaw lima soso nak yaw rek ci nabi yi ay xareem waxagum naa la ci xare bi ñeenti xare maa ngi ak yow ci juróomeeli xare bi di xaswatu xatafaan ngi yëg ne yonantu mosta noppalu lim daj ci diina ji waroon naa tax ñu gën koo sagal ci jëfe lim ñu indil fexe ba bàyyi lépp loo xam ne tere nañu ko ñu góor góor lu sax ci njub góorgóorlu sax ci jubal lim ci daj moom ak saxaaba yi mburu dajul ko ci fuur ba مام خليفة دانا لين قول بجي كان أمرك من أولئك القوم حقا أهل التقى والمعالي أسود حرب نهارا رهبان برد الليالي أثنى الإله عليهم بما تلا كل تالي بما تلا بما تلا كل تالي بأنهم خير قوم أكرم بها من قصال يوي نغملي ني باكي تي خاريا بوكو بني خطفان موم غاي تيري ني كوي تودي خسوتو ذي imrin xare la boo xamee na ni dafa xew mi ngi xew gannaaw xaswatu sawiq yonantu dafa sax li des ci weeru tabaski te waxoon tabaski bi mu njëkk julli mu noppalu weeru tabaski ba mu jeex mu door a nag génn ci tam xareet waa war a dem nag seeti place boobu ñu tuddee bani xatafaan place la bu jege najat lu ko waral menn mbooloo ci bani saxlabata ak bani muharib ak bani anmar ñoo dajee hon ci place bu ñu tuddoo zi imrin begona lokki xalali julit ñi fekk na nak ki nga xamne ne moo doon seen kilifa ngi jital ko moy igor gu ñu tuddé jambar lahon. la xoon ci la bi préparé rek yëg ko genn moom ak i sahabaam bàyyi madinatu munawwar usman ibnu Affan ba muy genn ñenti témir nit la andak ak juroom juróom fukk bi nga xamé ne nak ñoom dégg nañ na bi genn na rek ba nu xatafaan gi yëpp daw xiig ca kaw njul lëx doj ya ay tapet lañ bi sax ci zi imrin ñetti fan gisul kenn ci bisab ñentel ba nak yalla jay taw mu summi ay yereem yu mag doon ko weer pour mu waw mu nekk ci benn ron garab tëdd waa nga xam ne mooy seen général ba di xaw jël jaasi ja bokk ko di nëbbatu ba fekk yonent bi mu dànd ay saabaam moom kenn mu taxaw ci kanamam ko ki gaas gi ne ko anak kan moo tere tey ma fat sa bakkan yonent bi ne ko yàlla ndax moom bu wéetee yàlla lay wéttali bu lay léegi nag ba mu ko ko waxee rek waaja tiit ba jaas ji rëcc ko ba mu ko rëccee nag ci la ko ne ko waaw jaasi ji nga ma bëggoon a raya tey maa ngi ko téye mi ngi nii sama loxo ana kan moo mën a teg tey ma ray la mu ne ko xanaa nga gën ma rek yonentu bi ne ko doxal jéggal naa la waaye sax ñu ne dafa tudd baatam ashadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasulullaah moo xam gëm na ko moo xam gëmul ko waaye lu ca mën a xam daal ba ko yonentu man yamna'uka minnil aana qaala laa ahadun wa qaala kun xayran kun xayra aaqifin فتركه وعفى عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا أجمع الناس لحربك أبدا duutuma dagaleeti nit ñi mukk di xarek yow yonent bi jox ko jaasi mu ne ko ak dawal nga lang moom la alquran di wax ne yaay wala sina amunu skuru ni'matallahi alaykum id hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa ala allahi falyatawakkalil muminuuna kon loolu moo waral xare boobu kon moobu xare moom noonu rek la mel noonu la xem su ko defee tamit bad bad wi yu ba ma ngay tagg ma ngay wax xaw rasu ne wa fii aw fii xawrasin aw fii nadiri idhum qawmun unzilat ala albashiri noonu la ko saayir ba waxee pour indi indi laay jooju ne wane si li ko taggee ci la lañ ko wàccee boo demee ca saahibul këns ma ngay tudd juróom-benneelu xare ba mooy xaswatu jaraan najjaraan nak moy xaswatu bani sulaymin biñ waxon ci gannaaw rek motax dal bobu xare ah, moy mo am ben tur banu sulaymin mi don deuxième xare mom lañ tuddé xaswatu bani sulaymin diko tuddé tuddee bani najran kon nak ma ngeeg yow ci sixième xare bi moy uhud uhud nak xare bu tang la uhud aw doj la wu nek ci wetu madinatul munawara yeen hujaji da ngeen fay dem diko ko aw doj la dafa beru walis moromi dojam ya doj wa sax dañ koy tuddee su ay nay ni dañ koy tuddee su su ay niin su ay bi kasril ay danañ koy tamit tasniya zu ay nay ni doj woowu la iblis taxawoon yàlla na ko yàlla rëbbu wax ne ray nañ yonantu bi fekk day kàcc doj woowu wax nañ ne fa la xabrub yonantu yàlla na ba nekk yàlla rek a xam xare bi lu ci mëna am bisab samedi la ci wéru wori lu at ca gaday ga lako sabab ibnu ishaq muné baga ba nga xamé na yonentou bi rayna na kàngaami ci wa Quraysh ci Badar A ña ca des nag ndeysaanam daño mer ne daal dootuñ sangooti dootuñ lekati yap seen xol dootul féexati neex bata ñi ak yonentou bi rek fayu yalla dogal na nak motax tax uhud xareeb furle la xareeb manam revanche la yalla dogal nak ñafa dess rek rek ko abi sufyan mom bañ ko jaayé di alal ju bari Quraysh dox ak sen sang ya fa dess ak neew ñew na dañuy dañuy dal ci kaw yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tan ñokoy fekk ci motax fa mashat ku mel ni abdullahi ibnu abi ibnu rabia ca la bokk safwaan ibnu umaya ikrimatu ibnu abi jahlin ànd ak mbooloo ci seen i mbokk baay yañu rayoon ca badar ndey saanam ñoom tamit ñu ànd ak seen i rek ñëw ci abi sufyaan ne ko ñun daal suñ bakkan manta teeyati ba ta ñu fayoo buum suñ baay ya ñu reyoon xalal ji ñu jëlee ci ah, muy njëgg mi soxla wuñ ci dara nañ jël lépp dimbali koko ñaan revanche ki yonantu bi mana fayu mën fayul suñ bayyi ak suñu doom yañ fa ray téré bu ñu tuddee wafa mu sete ñeug ma rek boko sété seetee junney gëlem la hon boko sété juroom fukki junney dinar la hon xam nga lolu kon halal ju bari la légui nak ñi joxé bop alal ja kenn ku nekk la nga joxé won sa bop alal ja bañ ko joxé ñi ñi jël li nga xam ne mooy bénéfice ba rek bénéfice booba nag xalal ju bëri la moom lañ dimbandikoo pour mën a xeex ak yonantu bi ca uxut xam nga loolu bëri na moom la alquran ne inna lazina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu an sabilillahi fa sa yunfiquunaha summa takunu alayhim xasratan summa yuxlabuuna walladina kafaru ila jahannama yuxcharuuna nii moom la alquran wax da ngeen dagale seen xalal jépp ngir bëgg a ngir bëgg a protéger yoonu yàlla wi waaye la ngeen yëpp da ngeen ko joxe ba mu jeex mu jural leen ak perte ngeen dem xare ñu duuma ngeen ñàkk seen xalal ñàkk seen bakkan yi du ngeen sa dara yàlla la kenn mënta ta ak léegi nag seen ndaw ya yónnee nañ seen xabaayil yëpp ci arab yi pour ñu ñëw dimbale leen ñaand ak ña bokk ñoom ci ba ni kinaanata ak ba ni Quraysh génn na ànd ak xalal ju bari ànd ak armée bu bu ñi génn su ko defee di fàttalil waa armée ba seen baay yeñ rayoon ca xare Badar ngir seen deret gën leen a xeeñ Abu Sufyaan génn na moom moo jiite woon soldaar ya ànd naag moom Hind bintu Utbata ikramatu e ibnu abi jahlin genn handak ummu hakim bintul xars Haris genn andak fatimatu bintu walid ibnu muqira sen asraaf yooyu yëpp génn nañ jubair ibnu mut'im genn andak ak xalem bi nga tuddee wax siyu mooy ki rey ko sama bëgg-bëgg yëpp moy rayal ma rek boko rayé ma jox la nak ma def la ngay gor habbas ibnu Abdul Muttalib fekk mom mang ca makka ca solo ko genn ak gaay ne ko sa gaay genn nañ de bo ma nga màkka de ca xéeféer ya waye xolam bi mo moog yonantu ko hand mu ne ko sa gaay genn nañ de mu luye ya genn góor gu ñu tuddé ku bokk ci bannee xafaar sartaak mom ne ko ñewal madina fek ñetti fan nga nga yegg madina nga xamal yonantu bi xibar bi bala ko gaayé e bet ba muy ñew mën nga fek yonantu bi ci quba mu jox ko bataaxal bi yonantu bi ko ñi xamal ko ne ko abou soufiane ak gaay genn nañ revanche la ñaan seen armée bi nek na ñetti junne nit mbubbi kong yañ sol juroom ñaari téeméer la muy 700 xamna ñaar ñaar ñaari yi fas xam nañu junneey ak fukk ak juroom ci ay ay tek li dal moy seen armée bi ak liñ am ci ay ngannaay ak li nga xamni amé nañ ko ci matériel booba abu isata shail ah xat man na alayhi rasul sallallahu alayhi wa sallam bokk na ki nga yonantu ba xewee woon keroog badar te moom ku ñàkkoon la te bari ay doom yu jigéen mu mu mu fasakte yonantu ne ko an laa yukkthirul adwa ilayhi famtanaa min al masir ma al mushrikina mu ne ko man bu mbooloo jugatee di xeex ak yow du ma bokk ci bari bëril seen limba du ma ca dem moo tax moom demutoon su ko defee Safwaan ibnu Umayya dañut moom tamit ba génn di xoon nit ñi ci xareeg yonantu bi musrikuuna yi xeex si nañ ñi ngi ñi ngi wàcc nag ca tuñu xuur wa su ko defee nag seen wàcc ga bisab ajjuma la woon yonantu bi moom sallallahu alayhi wa sallama keroog moom muy gën la wax ne xasbunallahu wa ni'mal wakiil bi ka asul wa bi ka ajuul xasbunallahu mooy ngànnaayi yonantu yëpp lu mënut amut am amul lum mënu mooy ngànnaayu yonantu yëpp lim boo ci jàng baax na rawatina nga def ca quatre cent cinquante wala nga def ca mille cent onze bu mbir ma taree ba xëpp muy limab laa taxaf kon loolu baax na lool yonantu bi nag ba waxee loolu mu ne man mii de gént naa gis naa gént gi xiw la gis naa nag wu ñuy rendi gis naa ñaw ko jaasi bu pell gis naa ma dugal sama loxo ci mbubam koŋ mu am sécurité ma taawilee gént ga ne daal nag wii ñi rendi li muy tekki mooy dana am ci sama saxaba yi ñu bari ñu rey jaasi ju pell ji li muy tekki dana am ku ma jege ci sama waa kër dañ koy rey ndeke mooy xam satu waaye ji gaay yi ñu rey tamit ñu bëri ña mooy juróom-ñaar fukk waaye tamit mu firee gént ga mbubam koŋ mu dugal loxoom mu am sécurité mooy dëkk bi di Madina kenn du ko laal dana am sécurité yàlla sécurisé na ko yonentu bi nag diisu ak sahaba yi ci xare bi dañuy dem génn dëkk bi yam dañuy toog ñu fekk ñu fi ñii ne nañ toog ñii ne nañ génn ñu bëri na yow yonentu bi bul génn Madina daal amul kenn ko ñu mas a song ci armée fekk ñu fi lu ba duma nañ ko munaafiquna yi Abdullah na uba yu nekk seen njiit wax loola waa lansaar ñu bari ñu ne génn rek bu màkka waa màkka amee fitu bàyyi koo màkka ba ñëw fii Uhud ci jege bi ñun ñu war a xam fitu nag génn war a dajeek ñoom ñu bëri na nañ génn rek ba mbir ma méttee yonent bi jékki-jékki génn rek sol mu bam ko ngam ma takk beltoom nga beltoog der la woon foo jëm mu ne ab yonent bu xasee armé dootul mën a toogati ci këram mbaa dëkkam lu dul dafay war a génn ba yàlla atte la gën ci mom yonentu bi génn na munaafiquuna yi Abdullahi ibnu Ubay xam dafa dafa ak mom xalaat mu mer ci ne lu tax mu jël xalaatu xale yi di fi bàyyi sama xalaat mer yonentu bi gën tak ñetti drapo ben drapo ba mu fas ko jox muy drapo wa awsu mu jox ko a Hudayru wa qasra sen drapo mu jox ko xubab ibn Munfir drapeau muhajirin yi mu jox ko Ali ibnu Abi Talib amna ñu wax ne sax Mus'ab ibn Umayr la ko jox lu ca mën xam tu bi war na fasam wa fas wa ñu tuddee sattu mom la war jublu Uhud boba nak julin ñep junne rek lañ li ñu xamee won moy fasu yonent bi lañ xam ak fas wi nga abi burdata ibnu nayar ibnu nayar moko ko amee muy ñaari fasagum ah Abdullah ibnu Ubay ak ñim allié ci yahuud ñoom ñu ne leen laa tastansiru bi ahlil shirki laa tastansiru bi ahlil shirki bu leen sàkkoo dimbal ci xéeféer yi mu gaar armem ba moom daal bëggul gaa yi dem dem àndut ak yonent bi te ñoo firin ñoo fasante wuñ ko la bëgg-bëgg mooy dem na ànd ak waa Uhud yi loolu la bëgg yonentu bi gestu xool ñu ndaw ñi bu daan dem armée ñëpp a koy topp xale yi dañoo moon fit mu mujj nag dëpp ñu ndaw ñi keroog la dëpp Abdullah ibnu Omar keroog la dëpp Zayd ibnu Thabit keroog xare boobu di Uhud la dëpp Usaama ibnu Zaydin keroog la dëpp Zayd ibnu Arqam keroog la dëpp Bara ibnu Asib keroog la dëpp Omar ibnu Hazmin keroog la dëpp maanaam Usayd ibnu Zuhayru keroog la dëpp Arabatu ibnu Awsu kera lo dëpp ubay ibnu Sa'id al qudri kera lo dëpp sumratum lu jundub léegi nak ah li la yonentou bi def ak rafih ibnu Khudayj fukki nit fukki xalé ak ñent yo xam ne presque mësoor guñ ñi tollu ci mësoor bes ñoko topone mune yeen da ngeen na ndawé mata gulé xaré bam leen deppé nak rafih di traverser mur ba di yéeg ne ko damay dem yonentou bi ne ko kon ñewal dem ko mëno ñaka dem sumratum nu jundub ne ko boko ko bama ndax raafix mi manut ma yonentou bi ne ko bëri leen ñom ñaar ñu songo jundub mi daane rafia, yonentou bi ne yeen ñaar ñepp ñi ngeen far ñew dem billahi ñi ñoo am jom ay xam nga am ni ci ñoo xam ne tey boo xoote xare ñu bëri créer ay ngant ñi porter malade ñiy wax yu kenn xam waaye ñoom ñu ndaw ña sax ñu mag ña ëpp ñu jox jëmmi xale lañ yore waaye jikko mag lañ yor noonu la yonent bi yoree ay saabaam yonent bi ñëw na dox naa ba yegg si ci benn place tabaarakallaahu mooy boobu su ma saara xatta kaana bi mawtin axara rajaa anhu ibnu ubay bi man maahu min al kuffaari abdulaay ibnu ubay andak ak munaafiquna yu kuréelam ba ba ñu ba ci place rek ba genn madina rek egguñ uhur rek mom la faq ak mbolo xam daw dem bëgg a décourager saxabaay yonantu bi légui nak yonantu bi ñam déssé départ nañ dem nañ Abu Sufyan xegsi ñi wara nak sappé sappe yi pour wara xex Abu Sufyan yeen abdou dar yeen bani abdou darin yeen lañ joxoon suñ drapeau ba ca Badar xam ngeen ngeen xamoon ngeen lañu ca jot ñi xam defer rek kon yëkëti waat nañ drapeau bi joxaat leen ko ngir ngeen la na ngeen gorlu ba defet bañ amoon Badar pour ñu dalaat fi taxaw leen bu baax ngeen takkaayu te gorlu lii la Abu soufiane hebe, wa bani abdi ne ya bani abdi innakum qad wulitum liwa ana yawma badrin fa asabana ma qad alimtum wa innama tu'ta annaasu min qibali raayatihim fa imma an takfuuna liwa ana wa imma an taxlu baynana wa baynahu kon nag drapeau baa ngoog su ngeen ko namee jël dem leen ba jeex su ngeen ko mënta jël ñu jox ko ñeneen yonentu bi laaj ana kan moo yore seen drapeau ba ñoom musrikuuna yi ñu ne ko seen drapeau ba dee Banu Abdidaar lañ ko joxaat rek te ñoom lañ ko joxoon ba dara ñi gañe leen yonentu bi ne kon nag nahnu ahaqu bil wafa ñun ñoo gën a war a mën a matal kóllëre comme ñoom ñoo matal kóllëre joxoon leen ko ñi gañe leen ñu joxaat leen ko waaye waaye kon man tamit sama drapeau bi Musab nu Umayr laa ko joxoon kaay ma joxaat la ko yow Musab mu jox ko drapeau ba su ko defee nag boo demee ci maalimu tansil mu ne Quraysh yi ñëw nañ seen dañoo def armée bi jëysul mu xammas walu nday ndeyjoor ba kërëmatu mo fa taxaw ibnu abi jahlin bo jëlé mu hand ak ay jigen ndey san jigen ñaa ngay way di rajas ne nahnu banatu tariq namshi ala namariq al qata sawabiq addurru fi lmaxaaniq walmisku fi lmafariq an in taxlabu nuaaniq wa nafrusu namariq aw tafirru nufaariq firaaqa gayri waamiq jigéen ñaa ngi leen di way di way xëkkëramatoog ñam ànd ak ni ñun ñooy doom jigéen ñu rafet ñu ñun nooy yaram yi ñooy ñi njegenaayoo njegenaay yi jite dox kom doxak ak porentaan wu jiitu mu ne dur moo nekk ci kaw suñuy lal misk moom lañuy ñuy xeñtoo su ngeen gañee ñu doq hoog yéen sëyëg yéen lalal leen njegenaay yi lalal leen lal yi su ngeen dawee ñi teqalikoog yéen comme teqalikoo koo xam ne duur ku leen di soppati ba faw iktifaawu mu ne xeex nañ ba xeex ba tàng abu dujaanata xeex keroog la yonantu bi jàpp jaaseem jë wa kaana maktuban fi fi fi safhatihi maanaam fekk jaaseem jë ñun ca bind fil jubni aarun wa fil iqdaami makramatun wal mar ubbil jubni laa yendu min al xatim lii mu ne ragal gàcce la ñeme di songu tedd nga la nit ki ragal mënta tax mu mu mukki ci dogalab yàlla lii la wax jël jaaseem ji moom xeex ba dee yonent bi yëkkati jaaseem ji mu bindoon lool ne man yaqudu hasa sayfa wa yuxtihi xaqahu kan mooy jël jaasi ji waaye jox ko xaqam nit ñi sàkk ko ñu bari jox ma ko jox ma ko ñii ne jox ma ko jox ma ko yenoon bi joxut ko lu dul abu dujaana te moom ma waxoon la mul moo laaj yonentou bi ne ko luy haq jaas gi yow yonentou bi mu ne ko nga jël ko di ci dor non ya ba jaasi ji lem waaw waaw lu mu ne ko andi man dana jël haqam fek da def bobu moy drap moy moy moy jaasi bi iktifa moy wax motax bi xare bi tangé wa qatala abu dujana hatta am'ana fi naasi yonentou bi jël jaasi ja ndaysan ñi bind ca fil jubni arun wa fil iqdami makramatun wal mar'u bil jubni laa yanju min al qadri yonent bi ne man yaqudu hada sayfa wa yuti xaqahu abu dujaana gannaaw bi ko gaa yëpp sàkkoo mu ne jox leen ma ko ñu laaj ko luy xaqam yonent wax ko ko mu jox ko ko mu jël jaasi ja su ko defee di ca ba matal xaqam ba génn àdduna nun la ko yàlla jogal fa aqasoo wa jaala ala rasihi mu jël boppam ba takk ko benn kaala gu xonq commencé nag di daaguhu di tiitaru yonent bi ne ko sa dox gi ngay dox di daagu de haram na bu taxutoon na xare bi innaha la misyatun yubghiduha allah illa fi hadha al mawtin sa dox bi de yàlla geureumul ko doxam tiitaru di di dinkas ni di wane sag doole bu taxutoon na xare bi yàlla jéppi na sa dox bi de way ko xare la nak yàlla dula ci fekke dula ci top dara ah ma ngay wax nag ndeysaan di bàkku ne ana alladi qad hadani khalili wa nahnu bi safhi ladan naxili an laa aquuma dëhra fil kayuli adribu bi sayfillahi wa rasuli lii la mujj di way man maay ki sama xarit bi gindi ca place bi ñu tuddee naqiil man maay ki nga xam ne du ma dañ mukk peese wala may natt ba fees ba tuuru danaa dóoree ki jaas yi yàlla ji ak jaas yi yonent bi loolu kayuul bi tashdidi tahtiya musanaat wa fathil kaafi qablaha Muai mu aqal suuf moy kuy dox ya. ci gannaaw sàppeex kon nak jigen ñang leni way jigen ñu ñew nañ ci xirtal ñom timit tabarakallah ci julit ñi fek hind ibnu hind bintu Utba ma nga fa ma ngay yuxu ndax mom dañu rayon bayam mu wax rek wax siwu ma rayale ki rayon sama bayi, ala kulli hal ma gorel la ñaga ca ñaga ngay xare ba ngay tem talhatu ibnu abi talha ma ngay bakku di yooxu mo yore hon drapeau heferi ma nga nan man yu barisu ni kan mooy lewok man ali juk lewok mom dag ka ngam bopam ma mu de yuur ga tasaro su ko defé na yonentou bi lol kabar wax allahu akbar ca kaw julit ñi felu ko ah xare ba ngay dem yalla dogal na ray na ah, ray nañu rey nañu Hamsatu waaye bañ koy rey rey nañu bëri Hamsatu mii ñi rey moo ray ki yore woon seen drapeau ba di Ousmane ibnu Abi Talha di mbokkam Talhatu mi nga xam ne xàll yoo ko rey ah Hamsatu mile ah moo rey Artata ibnu Surahbil moo yore woon drapeau ba moo yore woon drapeau ba ni Abdi Daar ba Hamsatu mile moo ray Subaa ibnu Abdil Usa gannaaw si gi nag ci la ko yàlla wërsëgal ndeysaan mu mu shahid Wahshiyu mii di xulaamu Jubayr ibnu Mut'im moo ko mujj rey ndeysaanam a ah, Wahshiyu mu mujj dee moom Hamsatu génn àdduna nga xam ne euh, mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy sayful ilahi wa amil haadi maam xalifa loolu la ko tuddee sayfal ilahi wa im wa amal haadi karimal xisaali kooku mooy Hamsa ku tedd kooku boo demee Uhud ñu war la fa mu tëdd tëddaayam bu jekk ba yàlla nañu yàlla taaf ci barkeem waaye nag wax si yu muy ray ko mujj na xotti xol ba puufu ko ndeke def na da doon bëgg a def xay ba far def jàmm deretu julit ko ko puufu mënoo dégg mënoo mënoo dee ci kéeféer moo tax léeg-léeg nit def lu bon ba jëlee ca lu baax léeg-léeg nit def lu baax ba jëlee ca lu bon moom fa doon def lu bon fa par fa lu baax xotti xotti reswa puufu ko ndeke fa doon def lu bon ba jëlee ca lu baax looloo ko sowe mu mujj gëm yonent bi gëm yàlla dugg ci lislaam daana wax ne man de sama mbir sama kaalu garaaw la ba ma tuuba gud maa ray ki gën a baax ci nit ñi muy xamsatu bi ma tuubee a ba ma tuubee tabaarakallaahu ba ma tuuba gud maa ki gën a baax ma tuuba gud maa ray ki gën a baax ci jullit ñi muy wax si moom la ray de ba ma tuubee tamit nag tabaarakallaahu ma ray ki gën a bon ci nit ñi ndax mo ray manam musaylimatul kazaab mooma noona doon xoti nubuwatu dan wax nan wan nasihati qarqan mu koy toxo nan wa sarhan sarxan wala hasdati hasdan wa taahinaati tahnan ba xulamaaw balaaxa di ko nyaawal ni raqiqatun fi lafdhiha wal ma'na ka qawlihi wa taahinaati tahna kon ki ka xam lu doy war la waaye yàlla ku bëri yërmandi la mu ngok legi nak mu ngoog am na ñuy wax ca moom leneen waaye moom kon ab sahaba rek damay fegu ci moom Omar ibnul mu ngoog xare baa ngoog Musaab xeex ci kanam yonantu bi xanu drapeau ba bañ mujj ray ko mujj nañ ko ray ki ko ray mooy ibnu xam ata yal na ko yàlla rëbbu moo xaañoon yonantu bi moom la alquran ne wa muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين على عمران آية 144 ودم فيك بدر لجي نك بني راي مصعب ا آه، ملاكا مو درابو با امي ملو مصعب دي خيخ دي خيخ نانكو مصعب سونغال ديكتو ملاكا لا نيي واخ دي كساسا ñi gastu ndégatoo malaaka la mun leen lastu bi musaab bi doomu musaab de ah mu jigéen lañ xam ne ndeke waa ji malaaka la yàllaa ko dëgëralee jullit ñi moom nga dégg alquran ne minal mu'minin rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir waaye ànd ak loolu lépp wa ma baddalu tabdila laxsaab aaya 23 boo demee fekk ko ca ibnu qamata moo rey musaab moo daan wax ne man maa ray tamit yonantu bi loolu la waxoon dafa jàpp ne ray na yonantu bi jibril xaacu ne ray nañ yonantu bi julit ñëpp jàq ndeke dafay kàcc su ko defee nag kaab ibnu kaabu ibnu malik mu ne maa njëkk a gis ne yonantu bi deexul maa ko xool mu nekk ci roon pax ma bëtam yaa ngay takk ngir ak leeraay ibnu hisham mu ne utbatu ibnu abi waqaas moo sànni woon ak fett ba mu ko sànnee moom moom moom mu damm sellab yonent bi féetee suuf ca wàllu ndeyjoor sellab bu féetee suuf ca wàllu ndeyjoor la fett ga damm su ko defee tamit nag mu génn a xotti ko xotti tuñam suuf ma ah Abdullahi ibnu Shihab az-Zuhri yu xaañ ko ci jë ibnu xam ata tamit tabaarakallaahu xaañ ko ci genn wàllu jëga waaye bu seyru nee na xaañ waaye yooye ba ñu wéree moo gën a rafet ci jëmme yonantu ba su ko defee tamit nag noonu la demee xare bu tàngoon la xoon ah xare bu tàng la dara ja nag ndeysaan commencé di sotteeku ah waajuru abi saïd al mu doon muucu deret ja di ko muucu di ko naan keroog la yonantu bi ne aysatu mu génn massa man massa dammahu dammi man massa dammahu dammi lam tamusu naaru lam lam tasmu lam lam tamusuhu naaru mu ne képp koo xam ne deretam ak sama deret jaxasoo na kooku safara mënu koo lakkati kii ko yàlla defal na ko ko su ko defee nag gars yi saxaaba yi ñëpp ñu bëree daw talxatu rek moo dawutoon ibnu abdallahi mujj nañ di ko sànni fett ba baaraamam ya mujj sem ñu fekk ci moom ñaar fukki jam-jam ak ñeent am na ñu wax ne sax fekk nañ ñu dëbb ko juróom ñaar fukki jam-jam ak juróom keroog xareeb uhud lañ ko tuddee talxatul xayri keroog Eh, zaatu usayra ñu tuddé ko talhatul fayaat ku bari ay dakantal la ngir ak bax xare dana ñoom tuddé ko talhatul juudi ngir ak mbaaxam rasulullah Yunus bi sallallahu alayhi wasallam sallam ba nga xamé na ni xiina qashiyul qawm ni ñaa ngi ko faleziat mu ne ndax xamna goor guy bakkanam ya fa la ziyad ibnu sakan genné handam juru ni ci lansar ñoo xeex di dàkku di dàkku ba place ba yaatu xaat mu ñu mujj rey góor ñi rey gaaya di rey gaaya ba ñoo ña daw yonent bi nag ndax sama yonent bi salaam salaam nag ba yaatu waaye na gannaaw si ki xare bi nag ñu bëri daw nañ de saxaaba yi daw ñaari xaaj lañ ñii dañoo daw ba sori del si xaat ci la bokk ñii daw ñëwaatuñ ñii daw mujj gi xam nañ liñ def ñaaw na ngi ñëwaat ñetti xaaj yi la moo tax kaabu xeex bu ko defee dàq ko jëm ko jàmm pakku abu dujaana ta timit noona ba mujj tabaarakallaahu di dàq yonent bi sax du abi waqaas sànni ay fett su ko defee yonent bi ne ko fet sànnil irmi fadaaka abi wa ummi dote naa la sama ndey ak sama baay foofa nag la jaasi abdullahi ibnu jahshin ja tame yonent bi jox ko cëgg ak tàndarma mu soppeeku jaasi mu xeex ca ba am victoire pare bu tang la xare ngok danañ téré léné fukki góor ak ñent ñoo dawuto ñu abou bakkar dawud omar dawud Ali dawud Talha dawud abdourahman dawud saxdunu abi waqas dawud ñu dal tuddu nañ leen ca ah waye nak nga ca des dal ci wal lansar ah, waa nga ca des xam dawu ñu timi am ñu ci jukki ci wal lansar ñu fekk ñi ñi fukk ñent ñi na fukk nit ak ñaar rek ñii na ñëpp a daw ba mu des kenn nit foofa la ubay ibnu xalaf ñëw ne ayna muhammad laa najawtu in najaa ana muhammad yàlla bu ma mucc su fekkee moom mucc na xam nga ñaan gi day bu këppee sa kaw tay nga fanaan yàlla xiraa mu ñëw ñëw ne day léewoog yonantu bi ah fekk daana dajak yonantu bi wa kaana ubayu yalqa rasul sallallahu bi makkata wa yaqul lahu ya muhammad inna indi la awdu farsan awdu fas farsan farsan alifuhu kulla yawmin dafa daan dajeeg yonent bi ca màkka ne yow Muhammad am naa aw fas boo xam ne mëdd la danaa koy yafal bët bu set di ko jox ñetti kiloy dugub moom laa fas yéene war ko pour rey la ëllëg yonent bi ne ko xawma kande waa yow maa lay rey mu ne man nag bi ma ko doon wax dama doon caaxaan rek waaye moom ko wax na ne moo may rey bu ma tafli woon sax ma dee moo tax keroog uhud nag mu ñëw ne dafay léewoog yonantu bi yonantu bi na baleen ko mu ñëw ba mu jege see yonantu bi laaj benn xeec ku ñu tuddee xaaris ibnu sammata moo ko ko jox ba bu ko ko joxee yonantu bi wëndeel ko ko rek jam ko ko mu commencé nacc ñu ne ko lii de garaawut am na jam-jam yu ko gën a métti yu ñu daan dal ñi koy faj ba mu wér mu ne xawma kan waaye bii du ca bokk de kii bu ma tafli woon sax ma dee ñi xenu ko mu mujj dee ci place bu ñu tuddee sarfu bu ma sarfu rek foofa la mujj dee ko defee nag sanam, xare baa ngóog yàlla dogal na rey nañ ci ñoom jullit ñi juróom-ñaar fukk ndeysaanam ñoom daanaka ña ngay bàkku di naan naxnu jasaynaakum bi yow yowmi badrin wal xarbu baxdal xarbi saatu sihra léegi nag ña ngay wax loola di way di bàkku dem xare baa ngi wax Abdullah ibnu Jahshin wax na Saïd ibnu Abi Waqaas ca diggu bëccëg ba ne ko man de dama bëgg a ñaan nga may waxal amin na kenn ki ñaan wax amin mu ne ko saadu looy ñaan mu ne ko yow yàlla yàlla nga ma wërsëgal góor gu tar ci xéeféer may xeex moom ah ma ray ko ba yëkki la ma xamoon waxal amin mu ne ko amin Abdoulaye ne ko man nag damay ñaan li may ñaan yow yàlla yàlla gama ma sëggal góor gu tar law ci xéeféer yi mu xeex ak man ray ma dagg sama bakkan bi njoof ko ak samay nopp ma jeg yàlla ëllëg mu gërëm ma waxal amin mu ne ko wax naa amin ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne lam ñaanoon ca bëccëg ba kenn ku ne am na ko kee ray na kii ray nañ ko su ko defee nag kon xare baa ngóog nii la ko yàlla dogalee de wa tilkal ayaamu nu daawiluha bayna naasi te li waral xare bi yëpp la leen yonantu bi santoon lañ defut ña yonantu bi yéegloo woon ca kaw montagne ba ne leen yéen a yore suñ sécurité lu mbir mi métti métti bu leen wàcc yéen yéen a yore suñ sécurité saxaaba yi song rek première bi ñu xaba jeexal xéeféer yi ñee ne xare bi jeex na wàcc montagne ya xéeféer yi doxee noona nag wër leen ndomba foofa moom xaw nañ leen a rey ñu naan lii nu mën a amee ñi ànd ak yonent bi yàlla dañuy def nii mu ne lan wa tilka ayyaamu nudaawiluhaa bayna naasi noonu la yàlla dogal du gën ca man moo tax keroog xare Uhud tey nañ ci ñun juróom-ñaar fukk tabaarakallaahu yow mu mauna te ñi rey ci ñun juróom-ñaar fukk yow mu yamaamata ala hadi abi bakar ñi rek ci ñun juróom-ñaar fukk xare yi ñooy yi ëpp maanaam deret gi tuuru ci jullit ñi kon gis nga ko daanaka liñ rey ci e, jullit ñi yëpp ci xare yëpp ak ci xéeféer yi boo leen calculer passé wut ay ñeenti téeméer yu teg tuuti kon nag naka ngay waxee ne yonent beeg dafa nekkoon turkatab deret déeréet koo xam ne moom balaa xare ji fekk na tooñ nañ ko muy fayu wala ñi dal ci kaw muy défendre bakkanam te ñam joon xeex ak ñëpp sax de ay nit nañ ñu solal jikkoy bàyyi ma jëmu jën nit nañ waaye jikko jikkoy bàyyi ma lañ wax dëgg yàlla waaw kon bala ngaa wax ci loolu wax ay droit de l'homme demal nga seeti bomb biñ dóoroon Nagasaki demal nga seeti yeneen bomb yi ñu fi dóor ay junney junney nit dee ca ci loolu ci ko xam ne tooñ nañ ko ba muy bëgg a dee kon nag yooyu loolu loo ca man kon nag xare Badar bangoog ak xare Uhud bi fi la yonent bi yónnee ñi dem seet ci diggante Uhud ak ñi gas foofa pax mu yaatu mm, lu mat tabaarakallaahu ah, ñi dugal fa ñi nga xam ne dañoo génn àdduna defal leen ci benn kamb moo tax faada fu kama kaanat ñi ñi ñi rob leen foofa wa kaana bayna uhudin wa bayna xafrin anhuma sittun wa arbauna loolu faneen la ca yeneen xare ya muy muy muy lu mat quarante six ans ibnu ishaqa mu ne bi yonantu bi pare jëm ca ñitam ña la cotli koo jaaseem ja naawala sayfahu ibnatahu fatima mu jël jaas yi jox ko doomam fatima ne ko raxasal deret ji nekk ci yow sama si doom a yàlla dëggal na ma lam waxoon wa kaana yuqaalu li sayfi rasul جاس ينتو لغي تودو فول فقار لو جاس كي تودو بعض اهل العلماء داني واخ نه يونتو بي هوتنا كرو يوم الاحد سوكو ديفه تا كاو نا جاسي جال بي في هپ تاي غارانت موي جاسي فول فقار لي جاسي جي مان امول بن جاس جو خامني مان نكو فا ابن اسحاق من كرو قريب اوت لا تا دي شهيد جوليت ني موي جوروم بن فوكي نيت اك جوروم لول لاني واخ واي خامنا ني واخ جوروم ñaar فوكو اك جوروم moom nag dafa na ña ca dee ñëpp bay na uhudin xamsatun wa situna rajulan min al muhajirina wal ansar miskat ne rey nañ ci waa lansaar rek keroog xarib uhud juróom-ñaar fukk biru maunata ñi rey fa juróom-ñaar fukk yow mu yamaama ñi rey ca juróom-ñaar fukk kon moom tamit lool la gëm siira moom foo ko fekk ay wuute la muhaajiru na nañ ne ahlu siyar ñu ne ñi nga xam ne arbaatul ishad yowma uhudin ñeent ñi nga xam ne ñoo dee shahid ci jullit ñi keroog xare uhud nekk ay sang xamsatu cala ak doomi mbokkam ma di abdullahi ibnu jahshin ak musab ibnu umayri ak shamaas ibnu usman al maxsumi ñii ñooy ñoo xam ne rey nañ leen keroog ñu nekk ay sang yu mag ci xareeb uhud bi ak li nga xam ni xew na ca kon xare baa ngoog xare bu tang la xare baa ngoog kare la ko yalla dogale bu fekkone xare bi gagné dana bëri ñu dugg ci diina ji dugg ci l'islam bi ta fekk gëmuñu ko mang ga rek mo leen cey taxaj dugg ak lañ cey gagné moo tax nag yàlla wan leen ne da ngeen ni gagné ñi leen ni gagné ci lay mëna xamé xam ak feñal ñi degg ak ñi wa tilkal ayaamu nu daawiluha bayna naas noonu la demee te la leen ko yóbboo yëpp min indi anfusikum la leen la leen leen la leen yonent bi waxoon bu ngeen ko defoon du demee nii kon nag yal na yàlla fayal ñu yonent bi maa ngi ak yow ci juróom-benneeli xare ci xare yi sayduna muhammad yi noonu laa fas yéene toppeel la ko ba xare yëpp jeex bu subaa nag nga xaswatu bani nadir mooy nekk suñu xare mooy nekk suñu bopp dar su ndax xam nga nag xare bii dafa taxoon banu nadir dem firi seen kóllëre dem ànd ak abou soufiane te dañoo façon te kóllëre yonent bi dafa moom na allié yonent bi nag ba mu ñëwee teg ngànnaayam ci ne ko xaat sama borom tegagul ngànnaayam malaaka yi tegaguñ ko nga koy teg demal ci Bani Nadir fa la wax ne nag bu kenn jullee tàkkusaan dul ci ñoom loola suba ci waxtu wi lay doon incha allah ba ma toppee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu